الله الله الله الله الله الله أليف الله الله الله الله الله الله أليف الله الله الله الله الله الله أليف الله الله الله الله الله الله أليف الله الله assalaamu aleykum tabaarakallaahu ñi ngi dellu di nuyu mbokk yu tedd yëpp dileen leen ziyaara te di ñaan ngeen nangul nu sunu ziyaare ci yéen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 tey ci baat yi nga xam ni moom lañu fas yéene tafsir yàlla def mu nekk benn mise en garde ci ñi nga xam ni dañuy infiltrer islam bi waaye di infiltrer société musulmane bi waaye di infiltre organisation religieuse yi te fekk ni réellement bokkuñu ci yàlla indi ci njàngat njàngat boo xam ni dafay wane ni ki ñëw dugg si ci kuréelu jullit yi te àndul ak yéene bu rafet xanaa mu doon lañoo ñoo tuddee espion walla mu am la mu cay sàkku ji te du loo xam ni lu jëm ci yàlla la yàlla di ko bàyyi loo xel jullit yi waaye aussi di ko bàyyiloo xel ñi nga xam ni ñooy jiite organisation religieuse yi ndax léeg dina am ñu ñëw te fekk na réellement bokkuñu su ko defee toujours seen objectif dañu koy làq suñu demee nag ba atteindre ko rek dal di génn daldi wane seen bopp moo tax yàlla indiwaat jalook bi pour jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu seen façon doxalin mu wax ni wa iza laqu alladina amanu xaalu amanna wa ida xalaw ila shayatinihim xaalu inna maakum innama nahnu mustahzi'un lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru ils disent nous croyons mais dès qu'ils seuls avec leurs démons ils disent nous sommes assurément avec vous nous ne faisions que nous moquer d'eux. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yahmahun. Dieu se moquera bien d'eux et les laissera persister dans leur aberration. waaye mu laaj njàngat njàngat bi mooy yàlla wax ci alxuraanul karim ci baat yu tedd yi wax yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko pour nga xàmme seen melokaan faw nga déglu ma man sa borom ma dialogue ak ñoom wa iza laqu alladhina amanu xaalu aman na yàlla ni ñooñu bu ñu dajeek gaa ñi nga xam ni gëm nañ dañuy wax ni ñun gëm nañ ni yéen mooy bu ñu duggsee ci benn organisation religieuse fekk jullit yi ak seen kuréel ñu ñëw daldi ni leen ñun li ngeen gëm lañu gëm dañu bëgg ànd ak yéen ci organisation religieuse bi waaye fekk na réellement am nañu yeneen intention moo tax yàlla ni wa iza xalaw ila xaalu inna maakum gis nga ñaari wax yu bokkul yi benn bi di wa ida làqul alladina amanu xaalu aman na bu ñu ñëwee ci jullit yi fekk ñoom jullit yi ñi ngi gëm yàlla di ko jaamu di doxal seen organisation salon naka yàlla santaane ñu ni ci yéen lañu bokk gëm nañu ni yéen wa ida laqu alladina amanu xaalu aman waaye wa ida xalaw ila shayatinihim xaalu inna maakum bu ñu demee nag ba dellu ca ña nga xam ni ci ñoom la ñu jóge mooy ñi leen yabaloon pour ñu infiltrer organisation islamique bi suñu delloo si ñoom ñu ni leen pour pourtant toujours ñun ñi ngi ak yéen gis nga wàllu naar fekk foofu lay commencer di dugg wa ida laqu alladina amanu xaalu amanna ñëw nañu ci organisation islamique bi fekk jullit yi ña nga gëm yàlla gëm yonent bi ñu ni ñun ak yéen ñoo bokk ngëm-ngëm ndax ñu nit gëm nañu yàlla gëm nañu yonent bi ba jullit yi yaatal leen waaye wa ida xalaw ila shayatinihim bu ñu demee ba wéet ak seen kuréel googu nga xam ni iblis mooy président bi xaalu inna maakum ñu ni ñun kat ñi ngeeg yéen kon ñun dañu infiltrer woon ñii rekk lu jar di bàyyi xel la lu jar di bàyyi xel la parce que da nga koy gis dafay bare ci zaman ñi nga xam ni dañuy ñëw ci organisation religieuse ñu wax ni ci lañu bokk fekk réellement dañu infiltrer organisation bi léegi nag wa isa xalaw ila shayatinihim bu ñu demee ba wéet ak seen kuréel gi nga xam ni mooy kuréelu iblis xaalu inna maakum mooy ñi leen yónni woon pour ñu infiltrer organisation islamique bi ñu wax ñun ñi ngeeg yéen nu nahnu mustahzi'un ñu ni defuñu ludul mokki jullit yi waaye defuñu dul sabote leen xam nga njàngat bi ci dellusi lu jar di bàyyi xel la ndax dañuy xamal ñi nga xam ni ñoo leen yónni woon pour ñu infiltrer organisation islamique bi wax leen gis nga ñun ñun ñi ngeeg yéen bu ngeen gisee ñu dem ci jullit yi wax ni gëm nañu ni yéen c'est parce que dañu leen bëggoon saboter c'est parce que dañu leen bëgg foowe c'est parce que dañu leen bëgg jekku pour xam fiñ leen di jaar wa ida laqu amanu bu ñu demee ba wéet dajeeg jullit yi xaalu ñu wax ni aman naa gëm nañu ni ngeen gëmee wa isa xalaw ila bu ñu demee ba wéet seen kuréelu iblis yi xaalu ñu wax ñooñu ñu kuréelu iblis ba ñu bokkoon ni inna maakum ñi ngeeg yéen ba léegi ñu laaj leen waaw kon lu ngeen doon wuti ci société musulmane bi bay dugg ci organisation islamique bi ñu ni innama nahnu mustahzi'un nekk ñu woon lu dul pour saboter leen waaye nekk ñu woon lu dul pour foowe leen rek léegi nag yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ni moo wax ni inna diina indallahi l islaam nga xam ni kon islaam moomeelam la moom yàlla mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ni kon may tontu mais man ñan lay tontu mooy ñi nga xam ni dañu dugg infiltrer organisation religieuse bi alors qu'en réalité bokkuñu ci yàlla daal di indi tontoom ni allahu bi bihim yàlla nee na ñoom dañu jàpp ni nee nañu ñooy ñooy ñoo ñiy sabote ñoo ni mokke mais fekk na man yàlla maa leen di sabote xam nga man yàlla lu ma leen di sabote wa yamudduhum fi tuxyaanihim yaxmahuun mooy dama leen di bàyyi rekk dama leen di bàyyi ñu des ci la nga xam ni moom la ñuy jéem muy sabotage ba ñuy jéem ma jaare ci seen sabotage bi réeral leen mais la ca gën a garaaw mooy dama leen di réeral te ñoom du ñu yëg ni man yàlla maa leen piégé réeral leen te dootuñu gindeeku wa yamu yamudduhum fi tuxyaanihim yahmahoon man yàlla damay dellu bàyyi leen ñuy persister ci li ñu wax ni dañuy saboote dañuy saboote le monde musulman fekk na réellement man yàlla maa leen di saboote xam nga lu tax ndax yàlla dafay jàngal ñii ni leen moom yàlla su bëggul nit ki adhéré ci religion islamique abadan nit ki du mën a adhéré waaye yàlla aussi di leen dëggalal ni léeg di ngeen defe ni man yàlla ngeen di gas ngeen di gas pour wut kàmb jullit yi daanu fekk na kàmb ga ngeen di gas am na bu ma gas seen suufu tànk mais yëgu leen ko mooy bëgg yàq société islamique bi te fekk na réellement yàlla mooy utiliser noonu ngay infiltre monde islamique bi pour alag la waaye yàlla moo lay utiliser nga infiltrer monde islamique defa ni yaa ngi ko def ci sa teyu bakkan te fekk na yàlla moo la bëgg nasaxal ëllëg moo tax mu ne allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuxyaanihim yahmahuun nee na dama leen di bàyyi ngeen di persister rek ci seen ay aberration yi defa ni lépp lu mu mënta doon yéen a ko organiser yéen a organiser moquerie yi yéen a organiser changerie yi yéen a organiser lu nekk pour rekk saboter jullit ñi waaye fekk na man yàlla li ngeen jàpp ni yéen a ko organiser pour yàq monde musulman bi man yàlla ma làkku seen gannaaw di leen ko organiser loo mais di leen saboter ba tax yàlla dafa rejeter terme bu ñu utiliser ñoom ni dañu jublu pour saboter jullit yi yàlla rejeté terme boobu ni leen sabotage bi ngeen jàpp ni moom ngeen di dugal ci monde islamique bi fekk na man yàlla au contraire maa leen di saboté allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuxyaanihim yahmahuun yàlla nee na man maa leen di saboté na ma leen di saboté mooy dama leen di bàyyi ngeen di persister rek defe ni yéen ci ne ndekete li ngeen defe ni yenn ci nekk am na koo xam ni mooy jouer le te li tax mu topp seen gannaaw di jouer le ànd ak yéen mooy dafa xam ni am na benn béréb bu mu denc pour naar feq yi te mu di safara jahannam looloo tax lu jar di bàyyi xel la ndax ñoom defoon nañu ni ñoo ci ne jukko naar feq bi lañuy ñuy montré wa ida laqu amanu xaalu aman na bu ñu ñëwee ci monde musulman bi daal di dugg ci organisation religieuse bi fekk leen ñoom ñu gëm ñu ni ñun ñu ngi gëm ànd ak yéen waaye wa ida xalaw ila shayatinihim suñu delloo ca seen kuréel ya nga xam ni iblis a ko dirigé xaalu ñu wax ñooñu ni inna maakum ñun ñu ngeeg yéen ba léegi innama nahnu oon ñun dañu nekk rek di saboté ñële moo tax ñu dem di leen wax ni dañu gëm te fekk réellement gëmuñu yàlla ni nag da ngeen xamul ñee kuréel gu ñu yare dafa am borom comme kuréel gi borom bi ko moom mooy man yàlla damay dellu wax leen ni au contraire man maa leen di sabote allahu yastahzi'u bihim nan laa leen di sabo sabote wa yamudduhum fi tuxyaanihim yamahun mooy dama leen di bàyyi ngeen di persister nekk ci seen réer gi ba noppi defe ni yéen a ngi contrôler lépp alors que ndeke contrôler wu leen dara looloo tax lu jar di bàyyi xel la looloo tax lu jar di bàyyi xel la gis nga xikma yàlla fa muy feeñe gis nga ki xikma yàlla fa muy feeñe mooy nit dina jug di jéem dara pour saboter fekk na réellement ki kay jéemloo mooy yàlla xam nga lu tax yàlla xiir ko ci loolu mooy dafa fekk nit dafa ko dencal jahannam te daf ko bëgg nasaxal ëllëg moo tax nga daan dégg ndeysaan xakim yi bu ñu daan toog ba yàgg ñu ni yàll nañu yàlla xiir ci di def lu baax waaye ñu ni yàll nañu yàlla xiir ci lu baax xam nga lu tax ñuy wax baat boobu mooy dañu yëg ni yàlla xereñam may na ko mu jël nit xiir ko ci lu bon te bu ci xiiree nit ki ci lu bon mu def ko ba noppi moom yàlla mu àtte ko mbugal ko le pourquoi du fa am ndax moom mooy malikul quddus waaye mooy azizil hakim kon yàlla moom mooy juge bi yàlla moom mooy le créateur yàlla amul le pourquoi ndax moom moo bind lépp ñëpp ay jaamam lañu moom muy malikul mulki moom muy zul jalali wal ikram le détenteur de la majesté et de la générosité mais aussi le possesseur du royaume muy tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli cheyin qadir moom yàlla muy le juge moom yàlla muy le maître mais moom yàlla mu nekk ci kaw lépp looloo tax moom mbiram du am le pourquoi léegi nag ñi nga xam ni dañuy infiltrer monde musulman bi ba noppi defe ni sabote jullit yey tax ñuy créer seen infiltration yooyu yàlla ni au contraire nag da ngeen xamul ni man yàlla ma leen di saboté wa ida laqu alladina amanu bu ñu ñëwee rek rencontré jullit yi nga xam ni ñi ngi taxaw ak seen kuréel xaalu ñu wax leen ñoom ni aman na gëm nañu comme ni ngeen gëmee waaraate yi ngeen ñi waari dégg nañ ko wa isa xalaw ila shayatinihim suñu retourné dellu ca seen kuréelu iblis ya xaalu ñu wax ñooñu ni inna maakum ñun ñu ngeeg yéen ba léegi nax innama nahnu mustahzi'un dañu jublu rek pour saboter ñee pour nax leen yàlla ni comme may président kuréel ba man maa leen di saboter allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuxyaanihim yahmahun maa leen di saboter di leen mokke bàyyi leen ngeen di persister ba defa ni yéen ay contrôler seen bopp defa ni li ngeen di def yéen ka tey fekk man yàlla maa leen dencal jahannam ba noppi moo tax ma xiir leen ci lu ñaaw lii lu jar di bàyyi xel la su ko defee bu ñu dellusee ci terme xaqiqa da ngay gis ni yooyu toujours dafay am ci organisation religieuse yi nga xam ni léeg nu tuddee que daayira muy ay kuréelu diine léeg muy ay organisation yuy dellu ci ay tariqa léeg nga gis rek benn nit ñëw ndeysaan fekk daayiratul imaan ñëpp a ngi gëm yàlla waaye ñëpp a ngi gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fekk itam ci côté tijanisme bi ñëpp a ngi gëm Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif mu ñëw rekk infiltré daayira bi léeg-léeg da koy gis nit ñëw adhéré ci daayira jënd carte de membre te fekk réellement bokk ci daayira bi indiwu ko dafa am rek benn mouvement bu ko yabal pour mu infiltrer daayira bi ba xam nan lay fonctionner ak ki ko jiite dëgg mooy kan su ko defee mu xool na mu ko mën a yàqalee ëllëg bu génnee mooy baatu wa ida laqu alladina amanu mu fekk gaañ nga xam ni gëm nañu te nekk ca daayira ba xaalu aman naa mu ñëw ni yéen li ngeen gëm laa gëm comme yéen da ngeen gëm yàlla ñu ni waaw da ngeen gëm yonent bi ñu ni waaw mu ni tijaan yi da ngeen gëm Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif ñu ni waaw loolooy chartu daayira bi mu ni bokk naa gëm naa ni ngeen gëme gëm naa ni ngeen gëme te fekk ne bi muy wax loolu dafa am benn mouvement bu ko yebal benn mouvement boo xam ni fu ñu gis leer rek dañuy bëgg leer gi fay lëndëm daal di fay nekk mouvement ba ñoo ko yebal moo tax léegi bu àndeeg waa daayira bi fekk wa ida laqu alladina amanu xaalu amanna wax na leen gëm na ba noppi ànd na ak ñoom ba noppi mais gis nga bu àndeeg waa daayira bi bis bu demee ba daayira tas rek ba waa daayira bi làqu rek mu dellu ca mouvement ba contacter leen wa ida xalaw ila shayatinihim mooy mouvement bi ko yabal mu contacter leen xaalu wax leen ni inna maakum maa ngeeg yéen ba léegi de bu ngeen ma gisee may bind ci internet bi nii wala ngeen gis ma may envoyé message waa daayira bi wala may dem ci seen xadara dafa fekk c'est tout simplement que dama ñëwoon rek pour pour pour pour infiltrer leen pour saboter leen wa ida xalaw ila shayatinihim bu delloo ci mouvement bi rek xaalu inna maakum mu wax leen maa ngi ak ba léegi mission bi ngeen ma santoon pour muy ma infiltrer daayira bi ba léegi mission boobooy dox innama nahnu mustahzi'un man ak ñi ma àndal nekk ñu lu dul dem rek pour saboter leen ndeysaan bu ñu yëkkatee yàlla bàkk ko ñu yëkkati yàlla bàkk ka ànd ak ñoom ji way yi bu ñu taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ñoom ci way yi bu ñu nee ñoom ay tijaan lañu dañu gëm Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif comme seen gidd lu ñu ko waxal ci cër rek ñu ànd ceeg ñoom waaye loolu yëpp xam nga lan lan ca jublu innama nahnu mustaadiun pour saboter leen rek da ngeen koy gis ci daayira yi nit koo xam ni day ñëw wax ni adhéré na te fekk réellement dafa infiltrer daayira bi lu jar di def attention la wa iza laqu alladina amanu xaalu amanna parce que alquran indi na ko dañuy ñëw fekk ñi gëm ame benn idéologie bi di ko doxe ak seen organisation religieuse nga gis kenn ku ñëw ni moom idéologie boobu la amee daal di ne adhéré na fekk am na la muy préparé kat xam nga la muy préparé mooy ñu miin ko ci ba noppi walla ñu xàmme ko ca ba noppi mu génn yëkkati loxoom ni yéen ma ci miinoon ñu ni waaw mu ni yéen ma ci xàmme woon ñu ni waaw mu utiliser miin boobu ak xàmme bañ ko ca xàmme pour yàq deru daayira bi yàlla tudd ko ca alxuraan avertir jullit yi avertir ñi amee organisation religieuse bi mais avertir aussi membre daayira ba wa la iza laqu alladina amanu xaalu amanna loolu la leen waxoon waaye wa isa xalaw ila shayatinihim su dellu ci mouvement iblisam boobu nga xam ni ñoom ñooy nekk fu ñu gisee leer rek bëgg ka nasaxal fu ñu gisee nit ku baax rek ñu bëgg yàq deram fu ñu gisee ku amul sikk rek ñu ni nañ la sosal wa ida xalaw ila shayatinihim mooy seen mouvement boobu xaalu mbokk ma nga xam ni dafa infiltré woon daayira ba wax leen ni inna maakum maa ngeegi yéen ba léegi parce que léeg-léeg bi posé la question ni ah yow dafa mel na léegi ñun ñoo la yónni woon pour nga infiltrer organisation religieuse bi waaye fes nga si fes boo xam ni mbaa doo jékki saa sax daal di ñu bàyyi dem ci ñoom su ko mouvement bi waxee loolu rek mbokk mi daal di répliquer alquran indi ko xaalu mu tontu leen ni inna maakum maa ngi gi ba léegi ñu ni ko waa loo jublu koon ci lañ la gisoon ngay bind internet di tagg daayira ba wala di tagg kilifa daayira ba mu ni inna ma nahnu mustahzi'un dama ci jublu woon rek pour pour saboter leen dama ci jublu woon rek pour saboter leen ndeysaan te loolu gis nga lam lay jàngal mooy amul benn côté boo xam ni yàlla bàyyi na ko ci alxuraanul karim yàlla indi na côté yëpp léegi nag kooku nga xam ni moo doon doxal mission d'infiltration boobu pour bu génnee ci organisation religieuse bi mu yàq deru membre yi wala yàq deru guide bi moom la yàlla di waxal nee na que tànk loolu mi ngi nekk organisation religieuse tegu ci cadre islam sama ngërëm nekk ci man yàlla man yàlla may défendre organisation boobu moo tax boo defee da nga leen di saboté da nga juum déglul sa réponse allahu yastahdiu bihim yàlla nee na man yàlla maa jël en charge bàyyeetuma président daayira bi bàyyeetuma gidd bi bàyyeetuma kenn maa jël en charge li nga waxoon ni ay sabotage la maa jël en charge mission bi man maa lay saboté man yàlla xam nga numa lay saboote man yàlla wa yamudduhum fii ma yahmahun mooy dama la bàyyi nga dugg ci benn organisation religieuse ba ñu xam la ca ma bàyyi la nga dugg ci benn organisation boo xam ni ku ci dugg texe ma bàyyi la nga dugg ci benn organisation boo xam ni ku ci dugg sa lépp leer lay doon ma bàyyi la ba nga dugg ci biir organisation boo xam ni ku ci dugg te génn ca aljana la jëm ma xëy man yàlla rek génne la ci nga defa ni yaa ci génne sa bopp fekk man yàlla maa la ci sepp noonu la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif di def bu gisee nit ki dugg ci béréb boo xam ni béréb bu lumière la ci tariqa bi te bàyyiwul xel charte yi bàyyiwul xel condition yi wala def ca duggoon fekk comme mission d'infiltration rek moo ko ca indi woon bu xëyee génn ca ni bàyyi na yëkkati loxoom yaakaar ni moo bàyyi ndekete borom mbir mi moo ko ci seppi moom la yàlla di jàngale fii allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuxyaanihim yaamahuun dama la bàyyi ba nga dugg ci mission boo xam ni ku dugg ci mission bi rek daal di texe bokk ci ñu baax ñi ku bu dugg ci mission bi rek lumière bi gën a bari ci moom ma xëy jëkki saa man yàlla rek rocc la ci mission bi bàyyi la nag ngay persister naan maa génn di yëkkati sa loxo maa bàyyi ndax nangam ak nangam ndekete génnoo bàyyiwoo man yàlla maa rocci sa loxo waaye xam nga lu tax ma rocci sa loxo man yàlla mooy dama la yéenewul jàmm dama la yéenewul ëllëg aljana illiyin la ma la yéene mooy safara jahim ma tax muy lu jar di bàyyi xel te alxuraan la te lii may wax alxuraan la aaya yi mi ngi nii wa iza laqul ladina amanu xaalu aman naa mooy bi nga duggee ci organisation religieuse bi nga fekk leen ñu am seen idéologie nga ne ànd naa seen idéologie fekk na mission d'infiltration moo la indi woon wa isa xalaw ila shayatinihim mooy wane ni mission d'infiltration moo la indi woon ndax yàlla dafa ni boo retourné ci sa mouvement ba nga xam ni iblis ay président bi xaalu nga wax ñooñu ni inna maakum maa ngeeg yéen ba léegi lee may bind rek lee ma leen di soññek vocal yee may def ak yëpp rek lan laa ca jublu innama nahnu mustahzi'un mooy pour saboter leen rek ñun dañu nekk rek di leen saboter ndeysaan di leen wax la ngeen di wax dëgg la di gëm-gëm lu rek di leen saboter yàlla ni nag comme loolu organisation islamique la organisation religieuse la te sama yërmande def ci nekk ak sama ngërëm kon man yàlla may jël seen défense allahu bi bihim man yàlla maa lay saboté wa yamudduhum fi tuxyaanihim yahmahoon ma bàyyi la ngay persister ci say aberration rek naan maa génn nag nu woo ko mu def vocal def lu nekk defa ni moo rocc loxoom ndeketi borom mbir mi moo rocc loxoom lu jar di bàyyi xel la kon lii tey njàngat ba muy indi mooy fii li fi yàlla di jàngale ci ay yu tedd yi di alquranul karim mooy dafay jàngale ni mission d'infiltration am na ci domaine yépp ni mu amee ci yeneen domaine yi léeg-léeg adversaires yi di ko utiliser en temps de guerre noonu la amee aussi ci organisation religieuse yi léeg nga gis koo xam ni dafa ñëw ni bokk na bàyyi na fekk na mësul bokk mission d'infiltration rek la doon ndox waaye nag la ca gën a yéeme mooy borom bi subhaanahu wa ki nga xam ni dafa ñëw pour infiltrer organisation religieuse bi pour pourtant borom bi yëg na yëg na loolu mais daf ko ciy bàyyi léeg sax mu mel ni ku yëgul ni mission d'infiltration ngay dox daf lay bàyyi rek ngay dox xam nga lu tax muy bàyyi ngay dox ndax dafa yëg ni bis boo génnee da nga naan li la ci dugaloon mooy pour saboter leen borom bi nag jël jël engagement am teel a wax ni yow mosoo bëgg saboter ñooñu ndax moom moo la njëkk saboter kon piège bi nga doon rëdd pour tas organisation religieuse bi fekk na borom bi subhanahu wa taala tëraloon na beneen piège boo xam ni jàpp bi mu jàpp sa tànk moo tax nga dugg di ci jéem dara lu jar di bàyyi xel la ndax bare na ñoo xam ni tey ci société musulmane bi dugg nañ ci di dox ay mission d'infiltration ba jaaree ci alku ba jaare ci alku am na ci pays arabe yi am na suñu réew mi ci Sénégal fii la ëppee sax ndax da ngay gis mbooloo muy dem rek ña nga topp yàlla wala ñu ngi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di doxal seen farata nga gis benn mouvement xëy rek yónni fa benn waay bu ñuy yónnee waay bi dañu naan ko demal ba fi wala duniyaati wala duniyaati shukran shukran shukran